sunu waxtaanu tey ak sof lay doon ci waxtaan wu tàmbali woon ci ajuma yee jàll mu jëmoon ci xidma ak solo si mu am ci lislaam ak ci yoon wi ñu waxoon ne xidma ci wolof mooy liggéeyal yàlla mën nañ ko firee noonu séddee woon ko ñetti xaaj ba njëkk di liggéeyal yàlla ci diineem tañ di ko tudde aljihaadu fi sabilillah te mooy ki jaay bakkanam ak alalam yàlla ngir di ko xeexal ci ay aw yoonam bu ko jamono laajee ngir yàlla fay ko ci aljanna su ko jamono laajutit mu bàyyee yàlla boppam ak lépp luy dellu ci jëmmam taxam ne yàlla taxam ne yàlla ko ndax da koo jaay moom moomutu ko leeraloon nañ itam ñaareel bi mooy liggéeyal yàlla liggéey bu jëm ci mbooloo mi ko tudde al ihsaan te jëfal yàlla ci ay jaamam te lépp nit koy jëf loo xam ne ñépp a ko jariñoo foraas bi nga bënn ngir ñépp daara ji nga samp ngir ñépp fajukaay bi nga samp ngir ñëpp yoon wi nga defal ngir ñëpp kon lu jëm ci ñëpp rek lool ci liggéeyal yàlla yi ëpp solo ci la bokk ñu tuddoon ne suñu borom diggée ci ay yool ak ngëneel yu màgg lilladina ahsanul xusna wa ziyaada wala yarxaqu wujuhum xadarun wala dilla ulaika ashabul janna hum fiha xaalidun sunu borom ne ñi nga xam ne dañuy jëfal yàlla ci ay jaamam yàlla fayee na leen aljanna ak lu raw aljanna alxusna mooy àjjana ziyaada mooy lu raw àjjana mu ne ëllëg ñi weddi yàlla ak ñi daa jëf ñaaw suñuy tiit ak a jàq ba seen xar di njëkk ñoom ñee duñ ca bokk ndax ñoom àjjana lañuy lañuy dëkk fa lañuy sax ba faw laraw àjjana nag mooy taw féexale geneen su mboon di taw féexale feeñu leen ëllëg ñu jàkkaarloo ci seen ci seen ñaari bët te gis yàlla moo dàq fuuf aljanna man a aljanna li muy neex neex neex mutul asakay bànneexub gis yàlla sëñ tubaay di juñ ci ngëneel yooyu jëfal yàlla ci jaam ñi am waxee ca masalik ne wa qiila in xadara yowmul baari wa duriba siraatu fawqa annaari wa kaabadal waral jawaa wal gumma naadaa munaadin ayna ahlul xidma lil muslimina fa ajaaboo ajmain fa yu'maruuna lil jinaani musrain bi ay yuqaala lahum dul janna bi xayri mihdatin waxee di fitna nee ëllëg buñ jëlee siraat gàcce ko ci kaw ma ba ñépp maase jàq ñépp maase tiit danam yéenekat boote ca kaw ne ana ñi daal liggéeyal julli ñi te yàlla dong tax ñi daal liggéeyal julli ñi te yàlla liggéeyal yàlla ci ñi te yàlla dong tax sëñ Tuubaa nee ne ko noo ngi nii mu ne ni yéen moom fitna yeeg coono yeeg tartar yeeg njàqar yi yéen bokku leen ci yéen moom dem leen léegi ngeen tàbbi aljanna kon loolu kon ngëneel gënu ko màgg bokk ko ñetteel nag mooy liggéeyal yàlla ci nituk yàlla mooy nun murid yi ni ni nu def ak Serigne Touba wala nga ne mooy ni Serigne Touba def ak yonent bi sallallahu alayhi wa nan la Serigne Touba def ak yonent bi sallallahu dafa njëkk a tàmbale jaayante ak moom xam nga jaayante ci lislaam bi suñu borom yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woote ko mu woote ci gëm yàlla ak wéetal ko ñi dugg ci lislaam di dugg ci lislaam ba ba ba lislaam dëgër ba mbooloo mu la ko su jox ni nag jaayante ne ko way gëm yi nañu jaayante yow su mboon doo nangu seenu ngëm saxaaba yépp jaayante ak moom yéen suñu bàyyi on daka inama inama yu bàyyi on allaha yadullahi ne ko ñi saxaaba yi jaayante yow yàlla nangu ne seenu jaayante mel na man lañu ñu jaayanteel moo def suñu bi ñu ñëwee li mu njëkk def mooy fas bëggee liggéeyal yoonu saa la mu jëkk def mooy jaayanteeg moom ci xolam baayatuhu bi fuaadi xiina lam tarahu wa axdimuhu lillahi muftarida jaayante naa moom ci sama xol bi nga xam ne sama bët gisu ko loolu ci njalbeen la na doon sama bët gisu ko sama xol jaayante naa ci ak moom te ko liggéeyal def liggéey bu muy farata ci man baayahu al qalbu ma al aqlaabi ka misli bayaati al malal alaami xol bi jaayante na ak moom ak xalima yi ci di bind ni nga xamee ne mbooloo mu njëkk muy saxaaba yi noonu lañ jaayante war moom rek noonu la jaayante ak moom ci sama xol baayaatu xayral mursaliin fi ذا اغتراب naawi hijratin wa nasrin kaf sihab ba nag yonent bi sallallahu alayhi wa ca tumuranke ga muy ca biir tukki ba waaye am yéene nag na muhaajiroona ak ansaar ya àndee moom àndee di ko liggéeyal nañ ko doon liggéeyale mel ni saxaaba rek kon def ko muy wasilaam ala alladi taxatuhu wasila laka wa ahwa filahu wa qil yow suñ borom jàppee naa yonent bi saasam muy sama wasila ci yow def sama bànneex nag muy di ko roy ci ay jëfam ak i waxam yonent bi saasam mujj nekk wasilaam yenn wasilaam képp ci borom nga xam ne amul yenn wasila bu dul yonent bi sallallahu alayhi wa maali siwa muntaqa lil malikil waali wasilatan wa kafaani kulla ahwaali uma wenn wasila wudul muntaqa sallallahu alayhi wa sallam sama borom mi nga xam ne mooy almalik di alwaali te doy na ma nag sëkk tam mooy fegal mooy mépp tiit bépp njàqare du ma sàkku nag wenn wasila wudul moom it nag laa gayra nabi wasila wa fil ida wajjaha li jamila du ma sàkk wenn wasila wudul moom te defal na ma nag njëkk jamaleen njëkk ci man ca sama biir noon ya waxarali anna rasulallahi wasilate xat an ilal leer na ma ne sa rasulullahi rek mooy sama wasila ci la dog te sama borom subhanahu wa أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاه xam ne kon doon gi mu wasila ci moom neen dem na ba doon lu leer loo xam ne mboolem eh, ku am xel ku nekk leer na la ne xajuma ci gannaaw ku du yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li kulli man lahu maaqulu anna wasilati huwa rasulu ndax daa wax ne man de su fekkoon kaw suuf si fekk ma fi lenn jenn jeexit ju bokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam fekkuma fi alxuraan fekkuma fi hadis fekkuma fi daal jenn jeexit ju weesu rek ne asamaan si daana ko tiim daana gis biddiw yi ma gis loolu am naa lu ma leer ci sama pas-pas sama cofeel ci moom ci ne li ma bëgg dinaa ko am naa ko liggéeyal ba li ma bëgg dinaa ko am sama aju dana faju ci moom ci cofeel go yi ko sopp ak yéen ju dëgg jooju maam ci la taxaw ci buntam na di waxanteek moom ko yaa sayidi yaa rasulallahi yaa garadi inni la dal baabikal masfuudi fi qarani fa kun maini ala nafsi wa xud bi yadi wa kun xijaabiya fi daari naan mihani yow sama sang bi yaa yow rasulullahi sama ximinteef maa ngi ci nii ci sa bunt mel ni kuñ fi tëj ku mënatu dem naka doon sama ndimbal ci sama jëm te jàpp ci sama loxo nag te doon sama kiiraay àdduna ak alaxi ci lépp luy coono wala lépp luy fitna mel ni kuy néggandiku nag benn gendiku wax dana ci am teraangay saafu xanteeg soppeem boobu di sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa sayyidi yaa bughiyati yaa matlabi haatihi mubaayaatun ila yowmi liqa xata yusaafixaka almusaafaxata allati yarju wa yaxju an yakuna muxaqaqa yow sama sang bi di sama xeminteef di sama càkkuteef lii la jaayante la goo xam ne dama ko jaayante yow li dale tey ba ëllëg bis penc néggandi ko nag saafaxante yow saafaxante boo xam ne dinaa ca yaakaare jottoo ca ne daa nekk lu dëgg lu dëgg loo xam ne la ma la ma bëgg lépp dinaa ko ci amee nga xam itam dem na baag ci ne su fekkoon koñ mën a jot la day dinaa ko jot su fekkoon kuñ mën a jot la su fekkoon siñ euh, euh, euh, mayees na ko jote deret dinaa ko jot su duñ kuñ ma kuñ mën a jot ci làmmiñ mbaa ci loxo mbaa ndëggu dinaa ko jot fadaytuhu fadaytuhu law kaana yufda bidami wa bilisaani wa yadi wa qalami del waxaat ne su fekkoon deretam da daa nar a génn moom yonent deretam nar a génn na sama deret tuuru ko su deretam nar a tuuru na sama deret man Sëriñ tuuru wuutu deretam su naree wéradi naa ko wéradi te moom wér kéng def na kenn àggu foofu ci cofeel dami fidaa un li xuruji damihi wa maradi fidaa u daa i jismihi wax ne sama deret sax ak samay waa kër samay doom yépp jote naa leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dami wa ahli wa awlaadil fidaa u lahu abdan xadiman lahu muskaani sanada nga xam ne kon dafa dund ci eh, tarug aju ci moom tarug aju ci yoon bi saasam waaye di ko di ko di ko di ko di ko di ko dund ci biiram di ko dund ci bitteem coofeel ga laltaayu ko nga xam ne liggéey bi nga ko liggéey lépp coofeel la ko laltaaye wax na itam bëgg yëpp ko bëgg tudd naa ko ci sama làmmiñ bind ko ci sama xelima li ko dale ci asasi ba ci masasi boxtu bi xobbil muntaqa bi kalimi min asasin li masasin bi mi tudd naa ko ci sama làmmiñ bind ko ci samay xalima la ko dale asasi mooy ci atum junneeg ñetti mi yoonu mu di sosu ba ci atum masasi ñetti téeméer ak ñeent fukk nga xam ne juróom benn at la ca teg ñibbi si Tuubaa muy ci njaareem bi mu bindee xasidaam googu mu tëddee silsilatul kiram fi tartibi ajdaadi sayidil anam wax na ci njalbeen ga ne xaalal muhibbu li rasulillahi muhammadun sibtu xabibillaahi kiy wax mooy ki bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muhammad nga xam ne mooy sëtub xabibullah kiy wax daal mooy muhammad mi sëtub mam balla ay te doon nag ku bëgg lool rasulullahi sallallahu alayhi wasallam bi muy wax nag sabab si tax mu bind xasida gi sabab si dafa ne wali walit walit taladduti walit tabarruki bihi li kay ndax nuuqaa jami al mahlaki walit taladduti walit tabarruki bihi li kay nuuqaa jami al mahlaki dama ko def ngir rek bànneexoo sama cofeel ci moom waaye ak ngir barkeeloo ci moom ngir ñu fegal ma ëllëg mboolem xeete alkande yépp biiral ne ak cofeel ci yonent bi sallallahu alayhi wa eh, nga xam ne wax nu ci barab yu bare bare bare bare du benn dañaa du ñett maye su ko lim sax dem ba koy giñ di ko giñ billaahi ahbabtu rasulallaahi alayhi xayru salawatullaahi giñ naa ci yàlla ne bëgg naa yonent bi sallallahu alayhi waxin ne yonent saa sax moom a gënal mboolem bindeef yi moom ci gënal ahmaduna muxtaaru xataan lii ahab min xalqi man huwa ilahuna al ahab mboolem li yàlla bind moom ci gënal rasuluhu sayiduna muhammadu ahabu li min kulli xalqin yuhmadu mi def yi ci luñ baax baax baax baax yent bi moom leen gënal waxin ne sayiduna muhammad salaa sallam may sama bànneexu bànneexub àdduna amul benn bànneexub àdduna bu dul yent bi salaa sallam muhammadun zinatu dunia wa laddatuha salla alayhi lati lati albahrayni xad maraja waxin na bëgg yonent bi saa sallam mooy sama diine faf diini ibaadatu ilaahi nnaasi bi xubbi muxtaarin min al unaasi diini xubballaahi ma xubbi rasul alayhi taslima alayhi taslima ma kulli ma kulli rasul waxin ne bëgg gi saasam doy na ma doy na ma koom solo ma menn mu dul bëgg yonent bi salaa sallam xanimtu xubbal Mustafa wa aktafi bi daaka fal muta kafaafan yaktafi ndax yonent bi saa sam mooy mooy sam mooy mbir mu mën a doon moom rek la bëgg nabiyuna al mustafa xayru wara garadi fi kulli cheyin wa ma yaabaahu aabaahu rasulullah sallallahu mooy sama xemem teef ci mbir mu doon moo ne lépp lu mbañ nag bañ naa loola wax ne sama kóolutee fegal na ma bëgg lu dul lu yonent bi saa bëgg yaqiini yaqiini xubba ma laa yuxibbuhu nabiyun rasulun jaadali bil muxalladi rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy sama saafara si yaram du ma saafara woo ku dul yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sama saafara xol itam mooy saafara sama yaram mooy saafara sama xol shifaau jismi wa shifaau qalbi muhammadun sallallahu alayhi rabbi tudd aw turam rek mooy sama wéttal di sama mbégte nen tudd yonente bi aw turam rek moo may wéttali waaye tam mooy sama mbégte muhammadun dikruhu unsi wa mafraxati wa nuuru qalbi wa aadaa'i wa raaxaati tudd aw may sama wéttal di sama mbégte di sama leeru xol di leeru samay cër yitam di sama noflaay it tooxa suruuri sarmadan wa junnati anil mamaati wal adaa wa jannati neen rasulullahi mooy sama mbégte mu sax dàkk moom mooma tee faatu teema loru waaye itam mooy e, sama aljanna itam xabibi anisi fiqtirabi wa turbati shafii gadan yowman yulaaxil idatal ba rasulullah itam mi sama soppi boobu mooy sama wéttal ca ba nekkee ca tukki mooy sama wéttal ca ba ma nekkee ci sama biiri kër kon bu nit ñi toogee ci man wéttali wuñ ma de waaye rasulullah mooy sama mooy wéttali dem na ba ne sëñ Tuubaa neen neen tudd gi ma tudd Muhammad sëñ Tuubaa neen tudd gi ma tudd Muhammad bokk rasulullaay autour nee na mooy li ko dàqal lépp ëpp ëppal ko bànneex gënal ko ci lépp lu ñu tudd ci aw lam yi ba ko suñu boon teralee tiraangay am tur wu tedd woow yi neen loolu mooy daytalu xéewal ci moom yoo xam ne yaa yor na ci ak cant ak tagg yàlla subhaanahu wa taala ci defal guñ ko defal loolu ahmadu haada qaala inni ahmadu fa inna xaw li indi ahmadu da waxee ne ki nga xam ne mooy doomi sëriñam nga xam ne gërëmul ci boppam lu dul tudd gi tudd Muhammad rek loolu dong la sant ci boppam xaal ibnu cheikhihi allati laa yahmadu fi nafsihi siwa ismihi Muhammadu wax borom ne ko yow sama borom yaa ma tuddee Muhammad yaa ma ko tuddee ci barke yonent bi saasam yàlla nga may ci barkeem itam ma dëkk moom ni mel ni ay ñooñam ak ak ak saxaabam sammaytani bihi fa hab liya bihi jiwaarahu ka aalihi wa sahbihi bëgg bëgg yonent bi saa sa itam wax ne mooy mooy mooy tonoom mooy kóoluteem mooy mibitam mooy xéwlam mooy bëgg-bëggam ribxee xubba xibb ribxee xubba xibbi rabbina al li wa ci man laysa lahu kufan ahad tuusi an il igraqi wal kulumi mahabbati madinati ulumi bëgg yi mu ko bëgg daal moo ma fegal ak lab ca géej ga moom fegal itam bépp alkande bu mën a doon teyit bëggee mu ko bëgg dafay màgg nag dafay màgg di dolli ko waxtu nekk tan mu mahabbati alladi lii haajaha rabbi lesi kuliyati xad wajaha su ma wax ne alxuraan su il nas xubbu shahwaat mi ne nisaa lim su ma nee na nit dañ ko mooñaale dañ ko taarale bëgg ay bànneex bëgg ay soxna bëgg ay doom bëgg ay alal suñu baa neen bëgg yooyu yëpp nag bëgg yooyu saasu wut na ko ci man bi man bi xobbihi nasiitu layla wa dahaban wa fiddatan wa xayla yun mii fu aadi xubbahu xubbal wara fa kay fala wa minhu maxsusu jara yàlla na suñu moom bal dimbale mbal dafa tawfiq xiir nu ci ak njub te saxal nu ci te def nu dëgg dëgg taalibe Sëñ Tuubaa Sëñ Tuubaa nangu nu suñu taalibe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu allahu akbar allahu akbar ashhadu an laa ilaaha illa allah ashhadu an laa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 فيما أخبر وجاء به واتباع سنته ونصرة دينه والنصيحة لأئمة المسلمين طاعتهم ومعاونتهم على الحق وأمرهم به وإعلامهم بما غفلوا عنه عن أمور المسلمين وحقوق العباد وحقوق عباد الله تعالى والنصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى ما يصلح آخرتهم ودنياهم وتعليمهم بما جهلوه وأما الكتاب فقوله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون الحمد لله الرؤوف الرحيم ذي الطول الواسع والفضل المدرار العزيز العليم نشهد أن لا إله إلا الله العزيز الغفار ونشهد أن سيدنا محمدا رسوله روضة, روضة المعارف ومنبع الأنوار أما بعد فيا أيها الناس وفي الآية التي أصلحنا ذكرها وحديث نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم بيان الإيجاب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجعلهما الشارع الحكيم للقادرين عليه ثلاثة أقسام قسم يكون إنكارهم باليد وقسم يكون إنكارهم باللسان وقسم يكون إنكارهم بالقلب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 إذ كراهة المعصية من مرتكبها واجبة على كل مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم تقربوا إلى الله ببعض أهل المعاصي وألقوهم بوجوه مكفهرة والتمسوا رضا الله بسخطهم وتقربوا إلى الله بالتباعد عنهم ومن حق كل من ينصت إليه أن ينتفع بوعظ وينفع الناس به وأن يحترس من اتباع الهوى في جميع أقواله وأفعاله وأحواله نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة وحسن الخاتمة بخديم طه عليهم السلام آمين يغفر الله لنا ولكم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 allahu akbar allahu akbar alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmi ddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 allahu akbar allahu akbar الفتوحات ذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله asalaamaaleykum. asalaamaaleykum.